salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñoo dellu si waat tey ci sunu émission la cuisine sur la TFM tey ñu indi leen recette bu ñu tuddee roulade marbrée au viandes hachées de poulet tey moom lañ leen di wan naka lañ koy toggee buñ koy togg dinañu soxla viande hachée de poulet dinañ soxla nen bu ñu baxal dinañ soxla citron xorom ak poobar dinañ soxla paprika dinañ soxla persil ak coriandre toujours ak sunu sponsor yi ñuy accompagner. muy jonge épice ku ne xam ne jonge épice guub bi muy ànde sunu sunu ay togg ñu ànd ci itam ak beurre Sofia beurre Sofia beurre pasteurisé riche en vitamine A et E ñoom ñoo ñuy gunge ci sunu weeru koor bi yépp léegi ñu jublu ci recette bi dañuy jël viande hachée bi xaaj ko en deux parties viande hachée bi la ñuy la jaxase def ci sunu poobar def ci xorom tuuti def ci sunu bouillon jonge épice tuuti rek soxlawul muy bëri def ci tuuti limon lu tollu ak benn kudd bu mag rek doy na ñu def ci dëwlin lu tollu ak ñaari kudd yu mag baax na moom la ñuy jaxase première partie bi buñ ko jaxasee mélangé ko ba épices yëpp dugg ci lii film alimentaire bu ñu lal ci sunu plan de travail dañuy jël viande hachée bi def ko ci ñu maase ko bu mu jël forme film alimentaire bi ñu yore bu ñu paree ñu jëlaat deuxième partie viande ache bi def ko sunu assiette dañ ciy def tomate concentré benn kuddu bu mag baax na dinañ ci def paprika ñu def ci persil bu ñu haché def ci coriandre moom tam dañ ko daggat ba mu ndaw def ci sunu jonge épice def ci dëwlin def ci sunu tuuti jus de citron def ci olive bu ñu daggat dinañ ci def tamit laaj bu ñu daggat donc suñu paree yépp la ñuy mélanger ba mu jaxasoo bu ñu paree rek dañuy jël sunu nen yi ñu baxal léegi nag ñu jël sunu film alimentaire bi nekkoon ci suuf moom lañ koy rouler au fur et à rouler da ngay dindi bi ñu jël sunu papier aluminium bi yoon papier aluminium bi dañ ko ciy bàyyi. bala koy enfourner dañuy jël plat bi nekk ci four bi def si sunu ndox ci kaw ndox bi dañuy jël plat bi teg ko ci kaw plat bi am ndox bi cuire ko au bain-marie. pendant trent minutes. dugal nañu sunu roulade ci four bi léegi ñu réaliser sunu sauce bi koy accompagner toujours ñu ànd ci ak beurre sofia dañuy jël benn kuddu beurre sofia def ko ci sunu poêle bi bàyyi ko mu sey bu seeyee ñu def ci farine muy benn kudd bu mag mën nañu bàyyi mu jàpp 2 jàpp 3 minutes ñu jël sunu meew ñu def sunu xorom def sunu poobar def ci noix de muscade def ci tuuti jonge épice soxlawul muy bëri ci lañ ciy soog a def suñu persil ñu def ci suñu persil bu ñu daggat yëngal sauce bi mooy accompagner sunu roulade de poulet marbré ou viande hachée sunu roulade bi ñor na sunu marbré à la viande hachée de poulet pare na ñu def ci sunu sauce béchamel au persil moom moo koy accompagner donc ñu def sunu sauce sauce bi mën na bañ a bari ñu jël sunu quelque olives def ko ci déco bi sunu plat pare na muy sunu recette poulet marbré à la viande hachée de poulet ànd ci toujours ak suñuy partenaire Beurre Sofia beurre pasteurisé riche en vitamine A et E ànd ci ak sunu bouillon jonge épices muy buyon bi nga xamante ne moo ñuy accompagner pour andi plus de goût ci sunu ay recettes ñu leen di jox dig daje suba incha allah ak yeneen recette